Maïsou Diouf, coordinateur euh, de la convention des jeunes républicains départementales de Thiès. Euh, nous ñu toll euh, vacances citoyennes mais nous devons rek nga wax ñu ci li nga xamante euh, vacances citoyennes bi. waaw comme ni nga dit, fi dans le cadre des vacances citoyennes yi nga xam le de la jeunesse tey moo fi ñëwoon. comme ma la koy le conseil régional de la jeunesse dafa fait un camp au niveau de l'école des. Euh, l'Institut des des aveugles donc nous sommes accompagnés accompagné de la délégation nous en tant que nous nous aussi dalal leen ànd ak aussi euh, les vacances citoyennes aussi au niveau du du département de de Thiès euh, ñu parce que comme ni avons ko c'est une école yoo xam ne ñi fi nekk des handicapés visuels ministre bi ñëw fii dans le cadre de la réfection des bâtiments mais aussi jàppale leen ci financement yi alhamdulilah aussi liñ fi dégg parce que le ministre de la jeunesse à travers le directeur de l'ANPEJ nee aussi dina jox financement les jeunes là pour nous mën pour nous ba pare ñu projets parce que c'est un problème majeur moi, l'insertion. et aujourd'hui le ministre de la jeunesse il pour jàpp ci l'insertion des jeunes aveugles bi une formation dans le cadre des des des des financements yoo ont ne daf leen koy donc nous, na bën toute la délégation donc du département au niveau de la de la convergence des jeunes républicains, nous avons teewu un ak parce que nous avons au niveau du département de Thiès buñ paree nag au niveau de la jeunesse nous avons continué li ñuy wax suñu vacances citoyennes à travers le département à travers des organisations yoo xam ne nii euh, des manifestations citoyennes yoo xam ne nii dañ koy def au niveau du département de Thiès. bokk na tamit euh, ci ay wàllu activité yoo xam ne yéen ngeen koy waajal annoncé nañ ko est-ce que mën nga ñëw tuuti rek ci activité yooyu. effectivement euh, ñun comme ni ma la ko waxee rek politique dox ak wax la. dox ak wax la comme ni ñu ko xamee Thiès ñetti politiciens ñoo fi am ñiy liggéey ñiy wax ak ñuy lobby ñun nag dañoo fa yéene nekk bokk ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy liggéey bàyyi waxkat yi wax bàyyi lobbykat yi di lobby ah liggéey boobu nag moo waral muñ bi ñu defee constat xam ne tey suñ problème parti dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy vulgarisation des réalisations du président de la république gis nañ le président de la république dafa def lu bare bare bare bare bare bare ci ci ci réew mi secteur d' activité boo jël rek président def na fa loo xam ne nii kenn imaginé wu ko sax en quatre ans mais malheureusement pour le parti pour nous résultat yooyu population bi ni mu ko war a xamee xamee ko ni ñu ne nag ñu en tant que jeune en tant que ndaw dañu jóg aussi pour def lu ñuy wax de euh, séances de renforcement de capacité fexe ba jeunes yi cadres yi ñëpp. nous xamal leen li nga xamne mom président ci secteur bu donc motax on va initier une série de panels yo xamne dañ koy étaler programme de Caisse tuddé Thiès horizon 2017 2019 du yam ci vacances sax lay continuer dans un premier temps durant les vacances ñu inviter des experts dans tous les domaines Nous ñëw wax ak sur le PUDC sur l'agriculture, sur l'énergie, etc. Nous avons ñu ñëw renforcer jeunes yi wax leen li nga président def ak fi nga xamne mom la namé yobu secteur par secteur buñ ko aussi buñ delloo suñu seen commune mën vulgariser les résultats du président de la République parce que dama ma ne population bi élection 2017 et ak élection 2019 yi ay doxantu la rek parce que bilan président c'est un bilan largement positif doy na programme mais malheureusement nag communication boobu des na au sein des populations ñun nag déficit boobu lacune boobu nañ bëgg corriger au niveau de Thiès parce que boo jëlee Thiès sax tey le président def macha allah gisuma président bi ko fi def. doon na wax les chantiers inachevés de Thiès mais tey chantier président eggle na ko boo xoolee ndox mi gis nga château bi ñu def.

continuer jusqu'en 2019 C'est ba nit ñi xam Duñu yam ci panel aussi dañ koy accompagner ak série d'activités, comme ay consultations gratuites pour animer pour massifier le parti en relation avec tous les jeunes avec tous les segments de la population du département de de C'est loolu daal ñu ngi ciy Nous tous les jeunes de la ville et du département pour xool lu ñuy programme pour Jim koo xool ni réaliser. ñun en tant que jeune le projet boo xam jeunes yi ñoo ko porté jeunes yi parce que jàpp nañ ne animation parti bi massification parti bi ñun ñoko wara def té loolu yaakaar na ne kenn duñ fi jiitu. amna benen point manam muy référendum bi au conseil des cultures locales loolu dañ koy teurel élection yoy mu wara a nekk diggante conseil yi ci seen biir ak tamit ñoo xamné président moo leen tabb loolu ñu ko war a amal le 3 septembre 2016 yeen tay nak ngeen taxawaayee ci mbir moom waaw loolu man aussi dinaa ci mën a wax parce que je suis le deuxième secrétaire élu au niveau du conseil départemental kon je suis ni ñuy tuddee électeur kon nag loolu te bari na ay jeunes yoo xam ne aussi ay conseillers nañ. loolu aussi dinañ ci dox dinañ ci wax ñun fiñ taxaw daal mooy bu président weex na ñu ne weex na tàll bu ne ñuul na ñu ne ñuul na kuk président nañuy duglu mo door bi dal bu joge ci président nu mu ko xalaate rek non nañ koy defé donc lolu aussi nañ ci taxaw dem wo jeune yi nga xamné yeb yëpp nek ay conseillers liste bi nga xamné mom moom la président proposé pour le département ñu jàppale liste bobu pour mu mën gagner les élections donc au niveau du du du conseil des collectivités locales comme ni ñu ko doon ci élections locales yi defe ko ci yenen élection non noonu nañ koy né yéene wat au niveau des des élections là ou def le tour du département yi ma xool tous les conseils yo xamné ne ni daal tey war nañ mën japp ci lolu ñu japp ci même ya nos amis yoo xam ne ni peut bokkuñu APR mais ngi ci te gis nañ seen bopp ci li nga xam ne moom la président de la République liggéey ñooñu aussi nañ dem seeti leen fexe ñoom aussi ñu porter aussi yi nga xam ne président de la République moo koy choisir pour le département de Thiès loolu daal yaakaar naa ne aussi dinañ ko insérer dans programme nga xam ne moom nañuy def au ici au niveau du du de Thiès euh, li ci des aussi yaakaar naa ne mooy OFNAC bi ma doon wax loolu aussi damay faral di wax ne bi président di Macky Sall di ñëw commission la fi fekk commission xam nga ne ay prérogative bëriwul président jëlee ko commission yóbbu ko lu ñuy wax autorité administrative indépendante kon xam nga ne dooleel na ko lim ci jublu nag moo di fexe ba xeex ger parce que ger baaxut ci réew guerre lay delloo réew ginnaaw guerre lay indi ndol ci réew président ah lii kat commission la dolam bari wut léegi dama ko def autorité administrative indépendante ak renforcer ak ak ay pouvoir bañ ca ba parce que bo njëkk bo bo bo xoolee li fi doon am bu njëkk euh, les corps de contrôle là muy inspection générale d'État muy cour des comptes suñ defon son rapport dañ ko jox président président moko yobbu yóbbu mu ne nag léegi moom da ci genn mu ne of naag yow bo defé sa rapport ba paré jurun ko koy jaarale ci man yobbu ko directement chez le procureur kon koku bëgg na lu leer bëgg na ndóol dañ ci réew mi mu nommé koo xam ne nii aussi ñëpp dañoo amoon yaakaar ci moom mais may fàttali ko ne rek OFNAC ci exécutif la bokk lépp la présidente de l'OFNAC aussi ci exécutif la def te exécutif nag njiit gi mooy le président de la république OFNAC du juridiction du pouvoir. Sénégal ñetti pouvoir nañu am le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire OFNAC fait partie de l'exécutif. exécutif kon pouvoir kon il faut nit ñi leer ko. ba tax nag ki ñuy nommé aussi président moo koy nommé fal nañ ko mandaam jeex président fal na kenen parce que li ñuy liy caractériser administration la fa am gis nga ay ay penseurs yu maga maga mag ñom liñ ne moy caractériser euh, euh, administration dañ ne c'est la rationalité ak la hiérarchie. donc boo xoolee bindkat bu mag bu ñuy wax Max Weber loolu lay wax rationalité hiérarchie rationalité nag mooy fexe ba maanaam nit ki ngay fal mu am le profil de profil bi maanaam boo bëggee euh, koo xam ne lay atte nga wuti koo xam ne dafa jàng loi boo bëggee koo xam ne ni wàllu finance la nga wuti koo xam ne dafa jàng affaire finance maanaam profil poste bi nit war na ko am loolu nag président moom la defal maanaam bi ñu Nafi Ngom Keïta bi ñu koy fal ñëpp jàpp jàpp nañ ne am na profil de poste bi kon président wàccoog naa ñun ci loolu xëy na nag moom xëy na moo dem bi ci biir parce que buñ naan lay demal nga ne doo dem loolu yaa yaa quelque chose ki fal bu leen la maa la falan folli naa la fal naa keneen nga bëgg a siisu nga du dem kon am na leneen loo xam ne ni xëy na mu ngi ci biir loo xam ne ni waxaguntu nit ñi ñuy rappelé ne aussi Nafi lii habitude la ci moom ñun ñëpp ay Thiessois nañ xam nañ il y a de cela quatre yi nga xam amoon na ko ak ki ñuy wax le ministre Abdoulaye Diop ministre des finances ba di ko weer ci mbedd mi di génn ay discussion yoo xam ne ni moom Nafi Ngom Keïta ak Abdoulaye Diop ci salon salon Abdoulaye Diop nañ ko doon defee mu génn ko di ko weer ci mbedd mi kon bu ñëwaatee fii aussi génn lettre boo xam président la fa la ko bind président ci ci ci ci journaux ci journaux yi loolu du ñu bett elle est coutumière des faits lii mu def la koo tàmm mais nag yaakaar naa ne nous avons un président nous avons un parti boo xam ne assez responsable boo xam ne quand il faut prendre des décisions la koy jël et on passe à autre chose le président a déjà pris la décision léegi dañuy jàll ci lenn léegi li mu def nag OFNAC en en en en tant que en tant que structure ma jàpp ne man ça c'est un avis personnel. OFNAC ñi koy composé war nañ ko mëna war nañ ko parce que du question enquêteur nga rek da ngay maîtriser la commande publique parce que commande publique beneen affaire la du affaire enquête kon ñi nga xam ne dañoo former OFNAC nit ñi fa nek président bi mu falee président bu bees war na là, la composition de l'OFNAC parce que boo xoolee rapport bi mu bind sax da ngay da ngay da ngay déceler des failles yoo xam ne ni tey xam nga ne ñii seen matière seen xam-xam en matière de commande publique des na parce que bu ñu maîtriser woon dëgg dëgg la commande publique amna lo loo ci rapport bi nek na ci war a wala boog ni ñi défé sen enquête lay dess kon nak il faut ñu renforcer OFNAC en terme de de de spécialité en terme d'expertise expertise ba bu ñu rapport nit ñi xam li lii kat vraiment rapport la bo xam ni ko lii nga xam li yënu yenu maana ñiy rappelé nag OFNAC du tribunal bi àtte OFNAC du tribunal ta atté kenn lay joxé xalaatam rek xalaat boobu nak buñ ko yobbo ci juge ba juge ba moy xol ba xam li dëgg la wala du dëgg waaye nak mënon na yow autorité administrative rek nga melni ya yow tribunal bi mel ab juge nga àtte ne diw condamné nañ ko diw teñ nañ ko waratu diriger dara loolu kon kun jëm loolu pouvoir judiciaire moo ko moom mais moom loolu yoonam newu ci.

dañ na la ci texte yi fonctionnaire bi mën nga koo mën nga def enquête ba pare suspendre ko mais l' administration mën na ko suspendre en attendant mu def enquête loolu aussi il faut nit ñi di ko bàyyi xel des nit ñi bu wax du wax ci lu ñu xam dara wala du ñu waxee xam-xam l' administration peut suspendre le fonctionnaire en attendant de faire l' enquête de la même na def enquête ba pare suspendre ko ñaari cas yu na possible boo jàngee texte l'administration a préféré suspendre ko en attendant enquête yi pare donc loolu amul lenn loo xam ne dañ ciy violer les textes maintenant Sonko yéen ñëpp ko xam Sonko moom mënul feesal cabine téléphonique man mi nga xam ne benn responsable ndaw la caapare maa ko pinit ta mom ne parti politique la yor mais chaque fois doon def point de presse yeen ñëpp da ngeen naan ah suba la Sonko def point de presse te mu waxati ay wax. kon yeen journaliste sax seen bop xam ngeen ne kon doon ay tojang la doon wax mais tojaanga yooyu mom wax nak position bam nek nekk moo position bam nek nekk moo nous, que ce soit Sonko que ce soit Nafi Ngom vraiment c'est une bande de maîtres chanteurs Nous avons utilisé li utiliser position pour faire la pression qui ci ci autorité politique. mais loolu du avec le régime de Macky Sall pression ne mënul mënul parce que le président Macky Sall est un homme assez responsable assez expérimenté Il ne faut du mettre la pression qui monte. li Ce war a def L'autorité, sans être autoritaire. loolu mooy flogan l' autorité sans être autoritaire donc loolu aussi ñu koy ñu koy ñu koy rafetlu bu dee Thiès nag ñun liggé cool yi bari na comme ni ma ko waxee léegi rek Thiès moom ñii fi am ñii liggéey ñii ñii wax ak ñii lobby ñun nag dañoo préféré ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal nekk ci ñiy liggéey jàmm moom mën na am mais jàmm moom bala ma buñ bëggee mu am rek nit ñi nañuy waxante li ñu gëm. maa ngi dem Kaolack boo demee ba Mbour jàdd wuti Zoal mais loolu <laughs> yaakaar naa ne boo xatee kenn du ko gëm boo nee Kaolack la nit ñi ba nit ñi nañ dajee Kaolack mais dañ ñii dañuy da ngay da ngay fay jiitu faxaar leen fa mais nag boo ni nañ dem Kaolack boo paree yow boo demee ba Mbour wuti Joal mais ça pose problème kon nag loolu mooy suñ problème parti nit ñi dañuy wax ci kaw di wax ci suuf léegi li ñuy wax ci suuf nag dañ ko wax ci kaw wala boog li ngay wax boo ko gëmul bu ko wax mais fi alhamdulilah fii kenn dafa li waa ji waxan rek léegi golo golo la su golo yéegee golo yéeg fekk ko ñuy sant di leen gërëm